mbokk mi ma jàpp audio bi indaale ko ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di waaw di jégalu ci yéex a dellu gi ñàkk jot rek euh, gis yi ñuy wax nii dafa jotewul ak gëm yàlla dara gis yàlla leneen la gëm yàlla du toog rek naan yàlla moo nekk ci ginnaaw lépp moo koy sotti loolu ak ngëm yàlla gëm yàlla mooy da gëm ne yàlla moom moo am moom moo sàkk kawnu bi mooy sàkk nit ñi moo sàkk àdduna bi moo sàkk lépp mais sàkk gi mu ko sàkk mi ngi ko sàkk ci kun moom loolu la wax nee na lépp may boroom maa ko sàkk sàkk gi mu ko sàkk sàkk gi dafa ñëw indaalewul lépp sàkk gi lu mu indi daf ko indi mu nekk brut mooy buy bi ma lay wax ne boo ko daggee téye ko rek ne am naa wuy boo ko tojul du am njariñ la ca biir buy ba la nga cee jariñ la nekk ci xoox ba xanaa xamoo xooxu buy bi sax mën nañ am na huile bu ci nekk benn diw bu nekk ci xooxu buy bi bu ama am njariñ da ngay xool garabu guy xamoo lu mu doon mu jékki-jékki meññ indil la ab guy yàlla indiwul buy de garabu guy dong la indi garabu guy dong la fi bàyyi la fi wàcc taw bi taw wala mu ñàkk taw guy gi di màgg di màgg ba yàgg mu jur aw wuy nga di ko xool muuf tóortóor tóortóor daal di def fleur fleur ba yàgg mu nekk benn doom bu ndaw doom bi di màgg ba yàgg mu nekk aw wuy nga di ko xool muy vert di verte ba yàgg mu nekk jekk ñuul kukk nga xam ne ko wuy wi ñor na nga ne waa lii lu mu doon nga ne xaaral ma yéeg wala mu wut lu ko mën a lon ko dagg ko xam nga loolu am xele gi ñëw nga daal koy dagg mu daanu ñëw nga téye ko ne waa lii lu mu doon xamoo góob ba léegi lu mu doon kumpa nga toj ko gis na ay doom a nekk ci biir ak i caas ne ah waa xaare lii lu mu doon nga jël ci benn doom màcc dugal sa gémmiñ mos ko mu am lu mu la jox nga ne aa kii kat ku ko xooj mën nga cee am lii ak lii ak lii ak nga jëriñoo ko ba mun pare doom ba nga xam ne moo nekk ci biir doom bu ñuul bi boo ko xoojee ba jàmb ko ba segg ko doom bu ñuul ba des tubaab bi moom da koo jël daal di koy jugalaat beneen usine nal ko ba mu ko nalee mu génn ci diw goo xam ne diw gu baax a baax la diw gu cher actuellement ni xam nga yooyu ngi loolu yéen ngeen toog fi naan yàlla moo kii yàlla moo nekk ci ginnaaw tubaab yi ngay wax naan léeg-léeg seen xel dem ci lenn lu ñu bëgg te amaguñ ko wala amuñu ko mais ñàkk am googu taxul ñu bàyyi tubaab yi dañoo wuute ak yéen parce que tubaab yi ñoom duñ fi naan yàlla mooy dogal yooyu ñoom xam nañ ne yàlla ba muy dogal rek dogalug njàlbeen la dogal dogalu kun ci la dëxëñ lépp waaye lépp nag dafa ñëwul sotti lu ko nekk dañu ko war a wulli nal ko dëbb ko tourné ko euh, lakk ko am luñ ci mën a génne boo gisee safara ak ndox am solo mooy lépp loo gis ci àdduna bu bu nekkul ndox moo koy mooy tax nga mën koo jariñoo safara mooy tax nga mën koo jariñoo ndox ak safara ak ngelaw dañoo am njariñ yooyu dama bëgg ngeen di ci gëstu le feu le fer ngelaw safara ak ndox ngeen di ko ngeen di ci bàyyi xel di ci gëstu lu baree bare ba di jël seen xel di ko dugal ci loolu bari na ñuy wulli ci bi di ko génne lu ñu jariñoo ci ci ci jaww ji ci àdduna bi yëpp ñu di ko jariñoo ci ñetti mbir yooyu ci la aju ku ko maîtriser rek mën ngaa soppi lu bare bare ba àdduna bi waxuñu amuk yàlla ci benn amuk amuk doomu aadama yi la ñuy wax ci xel loolu mooy lii li ñu tubaab yi ëppalee di dem mais yi ngeen wax ni dafa ajuwul sax ci gëm yàlla man wóor na mën a gëmmin gëm yàlla yéen ñuy wax ñëpp maa leen gën a gëm yàlla fuuf wala ñu tolloo gëm yàlla mais ni ñu gëmee yàlla moo bokkul yàlla ji di ko téye man téyewuma ko noonu man yàlla ji damaa jàpp ne ko sàkk waaye sàkk ko mu sotti téléphone bii may wax ak yow yàlla sàkk ko matière yi ko composé xëy na éléments ya yooyu yëpp indi na ko ca kun ga waaye bu ñu xalaatul woon tey jii ba téléphone bi génn du ma wax nga di ma dégg mbokk yi lii naka ngeen ko bëgg a weddee sànni ci àll ba naan yàlla mooy dogal <laughs> ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp maa ngi soog a jeexal sa audio bi waaw loolu nga naan kun gi bu fekkante ne woon ca kun ga la ñu wàcce ñun ñëpp dañoo war a tolloo xel xanaa xamoo doomu aadama yëpp ñoo tolloo xel yàlla amul ku mu gënale ku mu jox xel mu rëy am ku mu xañ xel mu rëy amul yàlla ñëpp xel benn bind la doomu aadama yi benn bind la aadama ak awa la fi wàcce benn nit la fi wàcce wàcce wu fi ñaari façon nit benn aadama ak aw boobu ñoom mel ñëpp mennum xel la leen defal mennum xel la xel yi léegi nag dafa xel xam nga lan mooy xel xel mooy loo xam ne dafa nekk mooy l'infini plus l'infini xel mooy loo xam ne kenn mënu koo tënk mooy lu kenn xamul fu mu tàmbalee lu kenn xamul fu mu yem loolu mooy am xel gis nga xel moom ne kenn ku ci nekk am nga ko waaye am gi ko amut amu kun nga ko amee amoo ko ci amuk mu sotti amu kun googu mooy am brut li tubaab tuddee brut matière brute xam nga matière brute soo ko amee bëgg caa génne ay yeneen i mbir il faut que nga travailler ko ba mën caa génne ay yeneen i matière matière matière mooy li ma la wax sànq ci buy bi garab nga am brut mais garab googu ci ngay dema dem ba am ci cafaay ci ngay dema dem ba am ci diw loolu xel yi nga xam na ñoo tolloo ci njalbin ci kun xel yooyu daf cee am ñoo xam ne ñoom seeni xel mooy ñëw mujj sut ñeneen xel yi parce que seen xel yi dañ koy tàggat xam nga xel am tàggat la gis nga xel ku ku la dàq tàggat sa xel dàq laa utiliser sa xel di ko utiliser di ci xalaat ku la dàq xalaat xelam moo gën a ñaw sa xel day fa ngeen tolloon yéen ñaar ca kun ga dala fay ba dem yoonam tubaab bi loolu la ñu rawee tubaab bi dañoo nangoo utiliser seenum xel di ci xalaat xel bu la dàq xalaat moo la gën a stimulant moo la gën a performant moo la gën a féete kaw njaal benn gi nag ñun ñëpp ko bokkule waaye nag ñi ngi rawante ci taxaw gi ñu taxaw am lu ñu bëgg dugal ci suñum xel bés ko ba mu sës bañ a bàyyi nekk ci daa iman boo ci dee keneen jël continuer loolu la ñu tubaab yi rawee ñun dañuy toog rek naan yàlla mooy dogal yàlla waaye yàlla mooy dogal googu moo tax demuñu fenn fenn fenn duñ fa dem il faut que ñu xoolaat suñu diggante ak suñu borom xool suñu pas-pas yi nga xam ne dafa nekk pas-pasu passif pas-pas boo xam ne yàlla mooy dogal yàlla dafa am jot nekk ci àdduna bi di togg suñu ceeb yeeg di dawal suñu oto yeeg takk suñu jabar yi mais yàlla moom amul googu jot ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ah waaw ku baax ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziar waaw loolu du xel de xam nga xel bokkul ak xam nga mën a mémoriser mën a jàpp bokkul bokkul ak xel mën ngaa jàpp mën ngaa mën a jàpp lu bari te doo am xel xale yooyu ngay gis dañu am différence ak yeneen xale yi ci wàllu mémoire xam nga mémoire du xel xam nga l'intelligence c'est pas la mémoire bokkul donc mën a mémoriser rapidement kooku nit mën na ko ëppale moromam jur bokkul ak xel ba léegi donte mémoire jote na ak xel mais ba léegi du xel benn la bu ci mais xel mémoire moo esprit xel donc da ci am xam la ñeneen ñi capacité ci wàllu jàpp dara wala mémoriser dara wala mais loolu mi ngi biologie mi ngi ah, euh, biologie nit ñi ñun ci suñu bopp ñun ñëpp ñoo bokk xel bi ñu yàlla jox au départ wante bu ñu demee di dund di dund di takk di takk di sëy takk jaxasoo gi ñu jaxasoo sa jabar ak yow seen ci seeni ADN mélange bi ciy am mën na génne ay yeneen i façon nit yoo xam ne bu ñu ñëwee xel mi moom ñëpp a koy tolloole ba mu des ki koy stimuler ki nga xam ne moom moo koy tàggat pour mën a am mais capacité pour mémoire fii li nga indi fii ne ku daan jàng page ak genn wàll dem école di kaw di raw loolu du intelligence mën na nekk ka mën na nekk mën a mën a parkeuriser mën a jàpp mën a jàng par cœur téye loolu mémoire la loolu mën na jóge ci ci ay waajuram mën na ko doon mu nekk lu héréditaire xam nga xel kenn du ko doon xel diisu ko doon mais mémoire mën a mémoriser mën nañ ko doon am na ñoo xam ne dañuy mën a jàpp. loolu lu ñu doon la lépp loo xam ne dañ koy doonante loolu du am xel donte jote na ak xel parce que xel dafa làmboo loolu lépp mais mën a mémoriser du am du am xel donc mën a mën a capter mën a mémoriser taxul nga am xel xel intelligence leneen la c'est encore beaucoup plus complexe que xale bu mën a pargariser xale boobu boo ko toppee dafa am ay gènes ci biir yaram ay ay DNA ay ADN yoo xam ne ni ngi ko jëlee ci ay waajuram wala ci ay maamaati maamam yoo xam ne ni ñu sëyantee loolu dafay am njeexital ci moom dafay am njeexital ci moom mais à la base moom ñun ñëpp ñoo toll am xel xale amagul xel sax li lay xamal ne du xel mooy xale bi nga wax xam nga xale boo gisee yàlla du ko togg jëf lu dul bu nekkee mu kallaf parce que xam na ne xel mi matagul kon foofu mënoo fa utiliser xel foofu lu naturel moo fa nekk loo xam ne mémoire daf ko judduwaale mu jëlee ko xel ci ay waajur wala ci ay maamam ci ADN mais xel amagul foofu ndax xale boobu ngay wax yàlla te du du ko bindal bàkkaar du ko bindal tuyaaba parce que matagul nekkagul mu kallaf xelam wayagul motax yàlla ne ba lama leen togu togg jëf da ngay dem ba mat nek mukallaf ci la leen commencé nak ku def lu bax ma fay ku def lu bon ma ma ma ma isaab parce que xel mi ñëwagul kon xel amagu fa hmm ñi lay ziar. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi nuyu mbokk yëpp di leen ziar yéen yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko ma ngi leen top seen débat bu am solo bi ma sha allah ndax débat lu bu jëriñ ci walu aduna bu mëna a jëriñ la tamit ci walum laaxira su fekkee ne. nit ñi dégg nañ ko nañ ko war a déggee xam naa topp ma audio yëpp am na ma jot a topp rek euh, mbokk mi ma bokk audio mu ëndaale am na yenn yu ma topp ci audio waaye ba ma koy déglu daa mbir yu ma interpellé euh, looloo waral ma bëgg a contribuer ci ki débat bi nga xam ne mbokk yu bari yëkk nañ ay kàddu yu ama ama am solo. bi mi ngi tàmbalee ci ne débat yu mel nii. ñu ci déggoo lu ne dañoo définir terme yi ñuy utiliser terme yi utiliser ci am solo lool te terme la yoo xam ne yu abstrait la nga gis ne am na complexité bu mag bu ci nekk mooy ndax dangay gis ne ñetti làng ñetti làkk la wax ñun sunu wax yëpp soo xoolee day dellu ci wolof français ak arab moo da gis ne kii di wax kii di wax xel kii di wax li nga xam ne moom mooy raison déjà ñetti mbir yooyu noonu ñu jàpp ne bu nekk day traduire boppam soo delloo ci culture ñoo ko wax am na lu ñu ci jublu yenn saa lu wuteeg lëkkale di wax moo tax suñ ñëwee di dabaat ci lii te définir ñu terme ya lañ ci jublu dañuy riiroo rek ki day jaar fii ki day jaar fële su fekkoon dañ koy définir suñ delluwaatee ci ñi nga xam ne ñoom définir nañ ko moy spécialiste yi nga wat ca day gis ne ñom sax bañ ko définir dañoo dëppoo ci lañu définir ku nekk day indi élément de réponse nga gisat ne kon nit ku ñëw mom daat ne li moy raison taxaw ca ku wax mu ne la loolu du raison koku bàyyiwul xel nuance bi am ci sujet bi mi ngi dugg ci simplicité alors su delloo ci nga xam ne ñom ñoom seen xam-xam dafa nacc ci da ngay gis ne dañu indi ay wax yu dul jeex peut-être nit ku bëgg comprendre mbir foo mu jël seen wax yëpp boole ko daal ci am une et se fait une une idée si li nga xam ne moom la moom la moom la indi. nuance définition boobu mooy delloo nag complicité bi am ci sujet bi en soi ndax mbir mi c'est acquis wala c'est inné su fekkee dañuy gis ne définition yu bari dañuy delluwaat ci benn biir mooy intelligence am ay faculté la. yu nekk ci nit les facultés cognitives du koy permettre mu mën a adapter wa une situation donnée du koy permettre mu mën a euh, comprendre une situation donnée xam ne bi koy permettre sax mu mën a communiquer bi koy permettre sax mu mën a fexe ba ay principe principe am bokk euh, nekk en adéquation environnement bi nga xam ne ci lay ci lay ci lay ci lay doon da ngay gis nañ ci ñoom ñëpp lii day dellu si faculté day dellu si ku faculté wax capacité ku wax capacité wax aptitude nga gisaat ne terme yooyu yëpp terme yu complexe la yu abstrait la yoo xam ne sa boo ci delluwaatoon ci définition am mën nga ci jublu lu baree baree baree baree bare problème bi nag ñun foofu la ñuy jugee ci loolu nga xam ne dafa bari nuance lool ñu am luñ ci jël rek ñëw bëgg koo analyser li nga xam ne moom la ñu war a pass wala moom lañu ñu war a fas te muy dellu ci suñu diine. moo tax man li nga xam laa gis ci mbir mooy faaw ñu tàkkale li nga xam ne moom mooy diine ji la mu wax ci loolu al qada wal qadar tàkkale li nga xam ne nag mooy aju ci wàllu terme yooyu ci gisin yooyu nga xam ne spécialiste yi nga xam ne ñoom seen xam-xam nag ne waxtaan wax nañ ci foog ñu tàkkale ñaari mbir yooyu suñ ko tàkkalee dina leer moo tax ma gis ne man su ma toppee li mooy complexité sujet bii te dinaa wax ba pare mu wax sax li ma xalaat te dina compliqué dinañu mën nañ jël temps bu bare bare mën naa nuroo sax conférence moo tax li nga xam ne moom laa jàpp ci sujet bii nii mooy lii di intelligence bi nekk fi nit ki dafa doon intelligence boo xam ne am na benn part boo xam ne c'est acquis am benn part bu c'est inné loolu la études yu bari surtout les études récentes wone am na sax ñu koy jox chiffre je sais pas si je l'ai dit ou pas si je l'ai dit, je me répète. Et arabe des fois dama taqarrar taqarrar am na ci ben part bo xamné c'est inné am ci part bo xamné c'est acquis moy nit ki su juddoo amna na capacité faculté bu nek ci mom bo xamné ne dina ko permettre mu meuna adapter wu ci bépp situation dina ko permettre mën a xalaat face à toute situation dina ko permettre mu mën a dund ci wala boog mun a sax apprivoiser li nga xam ne mooy environnement am donte du subir benn éducation donte dañ ko isolé moom tout seul mu nekk fenn moom ci àll bu mu kese am na capacité bu nekk ci moom boo xam ne permettre muy adopté waaye dina am lu ko desee loo xam ne da koo soxla moom la ñu tuddee côté équipe bi mooy éducation mooy culture mooy ñu ko wër expérience bu koy permettre mu mën a mu mën a suuxat loolu waaye léegi nag ndax suñu juddoo ñun ñëpp capacité boobu ñoo ci yem képp après li nga xam ne moo ñuy différencier rek moom mooy euh, moom mooy éducation bi ñuy bi ñuy subir wala expérience yi nga xam ne nañ ko am na loolu moo ñu différencier waaye nag nit ñi juddu ñëpp suñu juddoo ñoom ñooy même capacité même faculté ci d'intelligence loolu ku ñëw affirmé ci bii wala ba da nga war a indi preuve leer li leer mooy spécialiste ñoom d'accord ñu mooy ba ñu waxee ni mbir mi c'est c'est inné ci foofu ngay moo lay won ne mënatu la doon benn ci képp ndax nit ku nekk faculté yi ngay juddoo donte c'est physique sax ko ay faculté physique la wala naan la lii c'est inné physiquement da ngay gis ne physiquement nit ku nekk la nga doon ne ci say baay ak say maam mënut a bokk ak keneen la mu doon ne ci maam ak baayam donc su ne inné rek mooy ne am na benn différence waaye li ñëpp d'accord fii nii mooy ne ñàpp suñ ko d'accord mooy leen mooy mbir mi moom am na xam ne da te loolu day delluwaat ci li nga xam ne mooy qada wal qadar day delluwaat ci li nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala gëm loo képp koo xam ne gëm nga ko jaarale ko ci ci yonent yi su fekkee ne nit ki li nga xam ne ci xelam moom la judduwaale loolu amul kii sikki sàkk ci ab jullit ne yàlla moo ko bindee moo ko bindee noonu moom la ñu bari wax yàlla nii la ma bindee li nga xam ne moom tamit la dem sàkk ko ba am ko te li ko may mo environnement ay ñi nga xamné ñoko ñoo ko ñu ko expérience personnelle effort yi mu defal bopam li mu xalaat loolu yëpp da ngay gis ne l'islam tamit su koy xalaataat loolu yëpp da koy jël war ko ci yàlla lu waral loolu mooy ne nit ki ñaari mbir mooy déterminer ay jëfam loolu mënti def mooy foog nga am ñaari mbir yi capacité bi ak volonté bi te yàlla daal bind na nit ki jox ko irada jox ko li nga xam ne mooy volonté volonté boobu ak capacité boobu noonu mënoo jël jëf lu ne ñaari mbir ñoo ko ñoom ñoo ko sëkk kon nit ki donte sax dafa ñëw ak xelam xalaat daa ji dem ba découvrir ay mbir yoo xam ne c'est day jëm ci wàllu adduna bi capacité boobu nekk ci moom yàlla moo ko ci bind loolu la l'islam di wax ne kon kii tam jëfam jooju yàlla ko bind ndax capacité bi yàlla ko bind capacité soo ko amee amoo volonté doo dem fenn nit kon li ko may volonté boobu mun a xalaat adapté wala apprivoiser environnement ku ko may volonté boobu yàlla moo ko bind ci moom loolu la jullit ñi di jublu ci ne diw jëfam yàlla moo ko bind yàlla moo ko def waaye amul jullit boo xam ne dafay xalaat bu xam pas-pasu lislaam dëgg dafa xalaat ne suy wax ne yàlla moo moo def nangam dafay jël mbiri delloo ko ci ne yàlla subhanahu wa taala moo war a wàcc di jàppale nit ñi ci nangam ci nangam waaye la nga xam ne leen di permettre ñu daal di egg fa ñu egg yàlla ko bind ñoom muy capacité ak li nga xam ne moom mooy volonté bi nekk moom moom la wax iraada loolu suñ ko waxee ba pare kon da ngay gis ne jëmmi ñëw taxaw nit ki daan ne la yàlla subhanahu wa taala moom moo dogal kenn mënu ciy diggee loolu kuy caricaturé li nga xam ne moom mooy pensée jàmbur ne ba mu waxee loolu moo tax mu yaafuus wala loolu tax du def dara déedéet ñi jàngale yooyu ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis ne donte lépp dañ ko doon delloo ci yàlla suñu borom yàlla moo leen bind yéen ak seen i jëf ñoom teewut dañ doon defi effort dafa jël bouclier ci guerre pour ñu bañ koo jam danoon jël épée ngir xeex xam ne kon kooku la mu jàngale ci waxam ci jëfam mooy lépp yàlla lay dellu ni koy déggee mooy ne nit ki yàlla da ko mettre dans des dispositions yoo xam ne moom mooy tax mu daal di jëf jëfi mbir te jëf yooyu noonu mënu ko réussir lu dut dimbali ko la ko yàlla bindee mooy volonté ba ak li nga xam ne moom mooy iraada ko kon day delluwaat ci lan mooy yàlla sontal moo bind lépp kon ñaari wuteewlut nit ki lépp yàllaa ko bind lépp yàllaa ko dogal loolu tekkiwut mukk mukk mukk mukk mukk ne nit ki dafa jàpp ne yàlla subhaanahu wa taala moom moo war a wàcc ba nit ki na ñoo nang ko yàlla amul jotu nangam ak nangam ak nangam ba sax su fekkee dañu am dañoo gis benn différence tey jii ci diggante ñi gëm loolu ak ñi ko gëmut li ko waral ñi gëm lii lii moo leen yaafus la loolu tamit dafa duggaat ci beneen simplicité bàyyi jël sujet bu complexe bu bari mbir yu bari ko waral nga bu ko réduire ci lolu pas passu julit ni d'une manière générale ak pas passu julit ni Sénégal nekut mukk nekul luñu wax nekul luñu doxé dañu gënné salam yalla lay dogal dogal lepp kon duñu def ben effort kon duñu xalat ndax loo japp ni yalla lay dogal lepp loolu dafa wuteeg li nga xam mom la nit ñi di wax dafa wuteeg li nit ñi di dund Sénégal yàgg nañu dégg ñu yàlla yàlla bay sa tool loolu ku judd Sénégal xam ko kon ñoo xam nañ ne yàlla moo dogal lépp ñu ci mukk ne yàlla mooy la nga war a def da ngay xaar yàlla defal la ko wala yónnee malaaka wala euh, wàcc defal la donte am na teex yoo xam ne tegguun jëmin ci yàlla suñu borom war nañ ko di ko moytu di ko wax ju teggin yàlla amul jot nangam ak nangam loolu jàpp na nekk loo yu teggin ànd ak loolu yëpp Sénégal yi gëmuñu loolu amuñu pas boobu noonu kon a ñëw réduire ne suñu li waral mooy dañoo am pas-pas ci ndogal goo xam ne mooy pas-pas gi mooy pas-pas bu yàqu looloo tax ñu dellu ginnaaw mais loolu simplicité gën am argument gënu ko suufee da ngay bàyyi paramètres yu bare bare bare bare bala paramètre bi soo ko jël da ngay gis sa nekkut mooy problème bi na sénégalais bu xëy doo tëdd sa néeg da ngay yeewu dem wuti góor góorlu ji ngir ñuy xëy jàngale ji ñuy xëy liggéey ñuy xëy di gas ay poos ñuy xëy di menee ba ñu ne fay mille cinq cent francs ay somme yoo xam ne dérisoire kooku mënoo ko wax ne su avancé wul li tax mu ñàkk avancé moom mooy parce que dafa ne yàlla mooy dogal ko kon gëm gëm gëm ne yàlla mooy dogal moom moo tax mu daal di ñële daal di koy raw li nga xam ne ñoom ñooy doon nekk sa eh, ñoom nga jàppe ñooy paramètres yi nga xam ne ci lañu war xool pour développer wu mais kuy wax lool sax finalement yow lay je me demande est-ce que yow yaa ngi utiliser intelligence kële peut-être moo gën a intelligent parce que su fekkee utilise intelligence kon ni nga xam ne li tax kii développé peut-être feneen nga ko war a xoolee mais du gëm gib gëm dogal su ko dafa gëm ne dogal kon day toog day ne gëm mooy su ko ne ndogal yow ni nga jàppee ne moom noonu la gëmee noonu la gëmee kon wax dëgg yàlla du xëy togg ceeb day xëy togg këram ba faatu. mais génn gi muy génn wuti mooy wan ne kon mu gëmut ne moom yàlla wàcc ko defal mbir yi kon su la waxee ne yàlla mooy dogal mbir yi kon war nga jéem a xool lam ci jublu dëggantaan njay fekkee da ngay réfléchir fekkee da ngay utiliser sam xel mais soo bëggee caricaturer da ngay ñëw rek daan ne lii moo tax kon jullit ñi gëm ni loolu jullit ñu gëm mooy yàlla tam mooy dogal lépp mais yàlla mooy dogal lépp musuñu cee jàpp ne da ngay toog yaa fuus mosuleen a tey xalaat ndax problème bi posé wu mooy à chaque fois ñun suñuy natt développement fi ñu koy nattee rek mooy jamono ji ñuy dund duñ jël ci histoire ñi nga xam ne tey ñoom ñooy superpuissance yi nga xam ne ñoom ñooy ñun dañoo jël paramètre lu baax lépp jox leen ne ku war a baax ni ñoom ñoom nga war a def mais soo soo yéegaatee un siècle deux siècles ñoom ñoo nekkoon ci suuf am na ñu leen féetewoon kaw.

ci ne mooy ñi dellu ci qada wal qadar wala mi ngi dellu ci gëm gi ñu gëm li nga xam ne mooy ndogal wala ni ñu ko gëmee moo baaxut mais loolu wàcc yoon bi di dem la kuy wax loolu t'as pas t'as pas compris grand chose en fait loolu du ci dara loolu waxi mbedd la rek nit ñi ñu wax yàlla dogal yàlla dogal yàlla yàlla bay sol tubaab bi ñoom ñoom dañoo loolu waxi du waxu intellectuel loolu waxu ji nga xam ne ñooy waxtaan ci marché yi peut-être grand place bu TFM ñoo ñoo war a débat di wax noonu waaye ab intellectuel niveau war na dépasser foofu lool niveau d'analyse am ndax li waral tey jii ñenn ci pii yi nga xam ne ñooy pays pauvres yi mënuñoo développer. seen i critères sa xam ne nekkut mbir yàlla mooy dogal ndaxte Sénégal kese nekkut mooy pays bi pauvre am na pays yu pauvre yu bari gëmuñu l'islam am na pays yu pauvre yu bari jaamu ñu yàlla suñu bopp soo demee Amérique du Sud Afrique centrale même une partie de l'Europe ay pays yoo xam ne sont pas développés du tout ndax li tax ñu mën a développé mooy dañoo gëm ne yàlla mooy dogal kon loolu la tax avancé ñu kon nit ñi tey suñu gëmoon ne yàlla wala bokk dañoo gëm ne yàlla mooy dogal mooy dañuy toog seen kër yàlla di leen defal lépp loolu la tax avancé ñu mais c'est bas comme euh, comme argument. Les gis ne li tax développé wala bokk ñel nañ yenn pays yi raw ña des du problème pas-pasu yàlla mooy dogal wala ko réduire le complexe nga réduire ko ci pour simple simple simple simple bal sax yàpp naa ne li tax moy gëm googu ñu gëm ne yalla mi ngi dogal wala yalla moy dogal lo moo tax sax yu bari sombre ñu ci yenn société yi malgré sen développement ñi ngi sombre ci mbir yu bari bari bari so doon analyser peut-être li tax ñu ci sombre moy ñak gëm ñu gëm googu ne yalla amna na part ci seen dund wala boog yalla sax moy dogal lepp ñom duñu ñu nekk mais lolou dañu yóbbu ci benn sujet. mais am na pays yu bari yoo xam ne lislaam nañuy àttewoo gëm ko gëm yàlla mooy dogal te tey jii kenn mu leen jënd ci pays développé yi loolu suñu jëlee ay baromètres yoo xam ne pays occidentaux yi ñoo ko imposé nit ñi pour wan pays bu développé bu ko développé pays yi bari tey àdduna bi ay yu pays développé ay pays jullit lañ kon mbir mi encore nekkut gëm googu yàlla mooy dogal wala ba gëmee ko gëm goo xam ne gëm gu erroné wu la. ndaxte foo ñu bàyyi benn biir mooy lii di al qada wal qadar ci sunu société sénégalaise wala yàlla mooy dogal pas-pas bi nga xam ne mooy pas-pasu général bi nga xam ne mooy pas-pasu awaami dafa dëppoog pas-pas bi nga xam ne moom laa suna jàngale moo tam foofu ñu bàyyi ci xel mooy werante gi am ci diggante sénégalais yi ci wàllu pas-pas lu ci ëpp delluwat ci qada wal qadar donte jullit ñi werante woon nañ ci qadaalu qadar ay kuréel sosu nañ ci bal kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo bëggoon a jël yàlla daal di koy génne ci li nga xam ne moom mooy jëfi nit ñi kuréel yooyu ba ñu tàmbalee am wala tasaare ci dëkku jullit ñi ci jamono jooju mooy tombeek déclin wu l'islam loolu yëpp ay sujet loo xam ne lu nit ñi mën a delluwaat la waxtaan ji mooy lislaam ba ñuy duumi da ngay gis ne kuréel yu bari amuñu woon ba yenn kuréel yoo ñëwee bokk ci kuréel yoo xam dañoo ñëw remettre en cause pas-pas bi ñu amoon ci qadaa wal qadar ñooy gis ne loolu mu foofu la tombé ak sa décliné li nga xam ne mooy mooy mooy lislaam ala kulli xaal sujet bii di ndax xel c'est inné wala c'est acquis ab sujet la boo xam ne ñëpp mën nañ cee waxtaan ko rek mën nga cee sa xalaat waaye ndax sujet boobu noonu ndax jëmmi mooy daan ne c'est acquis kon loolu lay wane kon Sénégalais yi dañoo gëm lu wuteeg loolu wala ñoom pas-pas boo xam ne moo tax ñu daal di toll fii ñu tollu jëm ci wàllu mbir boobu moo tax mënuñoo utiliser seen intelligence loolu la chaque année wuute na ak sujet bi ni ko ni ñu ko tëralee. waaw sëñ maa ngi lu baax ci yéex a tontu bi euh, ndaxte ba may def audio. yi ma wàcc sànq dama jàppoon ne benn rek lay def sax ndax waxtu dañoo tënk lool te bugguñu woon euh, xaabaabal bañ ci duggee sax dañ gis ne faaware nga am yenn détails yu indi te détails yi safar indiwuñu ko ndax lu bari bëggoon nañ ko wax mais maa gis su ma ko waxoon damay monopoliser débat bi te audio dinañ bari lool <laughs> ndaxte sujet yoo xam ne dafa laaj ay mbir yu baree bare bari waaye la ci bëggoon a leer rek mooy ñu bañ koo jëlee lu simple ñu mañ cee tamit am wax yoo xam dañuy ñëw rek daal di wax sànni loolu moom jàpp naa ne du doon débat boo xam débat lay doon euh, tax loolu ma junj noonu détaillé wu ko sax mais li ma jubloon ci tudd ci baat yi ci wolof ci français wala ci arab ñuy waxtaan seen biir mooy ñuy seen biir ku nekk da am baat yooyu jël indi ko te baat yi nga jël di ko indi amaana yow ca làq bu ko indi lañ ko jublu yow wute naa kële moom lañ ko jublu. te loolu su amee rek réeroo day am mooy day doon débat de sourds en fait ku nekk day wax fa ngay wax te nga wax bokkul euh, comme benn mbokk indi na fii exemple di wane nit ñi mooy ne yàlla subhanahu wa taala su fekkee ne mooy jëmmi nit ku nekk la nekk ci xel ci yàlla moo ko bind loolu amul sikki sàkk ci jullit ñi loolu ci compas pas bu wér ne yàlla subhanahu wa taala ku nekk xel bi nga yàlla la ko jox mbokk mi nga wane ne xel yooyu nag yàlla di jox nit ñi xel yu wuute la nga daal di joxe exemple li nga xam ne moom mooy lii di mémoire bokk li nga ne mooy mokkal am mbokk mu ne ko déedéet loolu duggut ci li ñuy waxtaane ah kay ndaxte su fekkee da nga wax xel wolof su waxee xel da ciy jublu xel mi nga xam ne dafay dafay mokkal moo tax ñu naan kii neexut xel xel mee naqari kon kooku ba muy wax moom la muy jublu ci xel. mooy da ngay gis mu ca jublu mooy mokkal te mokkal dafa bokk ko ci li nga xam ne mooy mooy intelligence dafa bokk ci définition yi nga xam ne ñuy définir raison dañ ko ciy dugal mooy benn paramètre la ci ci paramètre raison benn paramètre la ci intelligence kon ñàkk nit ñi ñàkk a yem googu ñu yem ci mokkal gi mën nga ci déggee tamit ne yemuñu ci capacité mooy capacité mën a analyser mën a comprendre benn situation donnée bi nga xam ne moom mooy définition bi ñuy jox en général pour intelligence soo demee ci li nga xam ne sax mooy charia da gis ne al aql da koy utiliser yenn saa yi jublu ci loolu muy mokkal am na xadis bu siiw boo xam ne noonu l'islam dañ koy faral di utiliser ngir wane ne l'islam dafay wàcceel l'islam te li ñu ko indil ak mooy lii mooy dañuy dégg ab mot ab terme ñu yem ci simplicité jël seen définition ñoom céréblanc jox ko terme boobu mooy xadis bi yàlla subhaanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax Aïcha radiyallahu anha ne ko jigéen ñi eh, dañoo nekk ñoo xam ne dañoo gàtt naaqisaat la indi mu indi baatu àqal wa diin dañoo nekk ñoo xam ne seen diine ak seen àqal dafa nekk lu suufe loolu dangay gis ne noonu lislaam dañ koy jël ne xool leen lislaam la mu jublu ci loolu mooy ne jigéen amul xel la femme est moins intelligente ko l'homme loolu la si jublu mais soo xoolee bu baax xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam définir la mu jublu ci àqala foofu la mu ci jublu mooy mokkal ndax ban exemple la jox Aïcha bàyyi seen ko loolu nu mu mën a demee loolu naka la la mu ko jox exemple mooy ne ah nekkut ne jigéen moom pour seede moom ñaari seede jigéen moom mooy yem ak benn seede góor lan moo waral loolu ndax l'islam dafa jàpp ni góor moom aptitude pour mokkal. waaye fii waxut aptitude pour réfléchir kon xadis boobu lañ ciy déggee mooy ne jigéen mooy gën a mokkal góor moo gën a mokkal jigéen d'une manière générale aptitude la loolu aptitude yooyu noonu kenn mënu ko réfuter ne xatta ci société occidentale am na aptitude yu jox jigéen di ko ca góor ku nekk am nga aptitude yu nekk ci yow nekk ci keneen ci keneen ki kon nga xam fa lislaam yonent bi salaam àqal la indi mais lam jublu ci àqalu boobu noonu mooy lan mooy mokkal les ko xamné ne xamut lislaam wala dafay jël àql rek day ñëw traduire mot bi par intelligence ak ñu ne jigen mom mo gëna a xel góor mais amna lu mu ci jublu ci xel ba mu ci jublu moy lan moy lu jëm ci walu mokal motax terme yi à chaque fois ñukoy waddi ñukoy waddi di définir da ngay dégg ñu bari ño xam dañuy woté wane dañuy top alquran dañuy faral di la wax nan la yàlla mom nee borom xéri lay waxal borom xéri lay waxal te xamu ñu ne so demee ci alquran li nga koy fekk yàlla diko utiliser terme aqal te li andi la chaque fois ma istiqar bi lay andi dañ gis ne bu aaya bu nek lamuy ci xel di lamuy wax di ci tuddu aqal wala fala taqilun wala alaqil lam ci jublu lenn la ci li nga xamne mom lañuy duggal ci intelligence sa yàlla sonta du alquran du tuddu aqal wa lo xamne ci dérivé aqal la موجب لو تجيني خم مع المعرفة تليدي معرفة ليدي آه، خم نبتي منا شيء من غا إيجي خم بام شيء لينغ خم نمو يرفع لشيء من غا يرفع لشيء بام أم لو لو سر خل لوم لو جخ وعي نسي من غا خم لو خم أي مبيريو لير لا nga xamne ñepp ci yëm xam gogu non da ngay bëgg xam kay xam bañ xam do xam فلم يشوط بقر وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم هم يعلمون أي عرفوه وعلموه يعني هم فسروا له فهون عقل نجوم وين جينا وبن كو خامي خامن كو وباخ نك نيراد كاي شانجي يالا سبحانه وتعالى دي واخ سي والو موي اي يالا دي وون نيت ني موي ميراكل ay miracle yoo danaan sa kanam lay nekk mu leer nañ ngay gis koo xam ne soon defoondoon médecine moo lay raw foofu ndax moo la ëpp faculté ci loolu aaya yooyu ni jëmm ci kanam di wan ne yàlla benn la mu nekk fa di nakk-nakkal moo tax yàlla mu ne kadalika yuhyi llahu wa yurikum ayatihi laallakum taaqiluun foofu noonu la fay jublu ay ngeen xam ndax aaya yooyu dafay nekk aaya leer yenn saa yi alquran ñëw di wax ci li nga xam ne moom mooy àqal wala dir bi àqal mu jublu ca mooy mën a comprendre mën a dégg nga nekk ci ab kanamu dara am loolu di junj nga mën a di nga mën a comprendre loolu moo tax yenn saa mu koy delloo ci xol mu koy dégg nga xam ne xol mooy dégg mooy comprendre te loolu tam benn critère la rek ci critère intelligence moo tax faut faire très attention en fait soo ñëwee daan bëgg ñoo ne peuple ñii ñoo gën a xelu ñii dafa vague trop xelu ci lan ndax nit ki mën nga am benn capacité benn faculté d' intelligence boo xam ne kële am ko mu am loo amut ci te day dellu ci xel ba tey jëmmi saa di opposé tout yi avec ñu dul tubaab yi ça c'est très vague wala jullit ñi ak ñu dul ni parce que maintenant at mi dafa jaxasoo ci pays occidentaux yi am na ay jullit ils ont participé et participent du développement ñooñu yenn ça ils souffrent que dañoo tout yi dafa am lu ñu découvrir ñaan ñuy tuddee tubaab yi Moi tax moo boobu sa kuy wax loolu tamit nuance bi nekkatul ci sa sa argumentation parce que ci biir pays yooyu nga xam ne pays développé c'est un mélange am na ay noir am na ay métis am na ay arabe am na ay jullit am na ñeneen ñoom ñëpp ñoom ñoo def développement boobu non té des fois pourcentage bu am solo lañ koy doon te su fekkoon ne si ñep ñëpp dañoo nekk benn groupe bo xamné homogènes. dañoo homogène ba nga comparer leen benen peuple bu homogène parce que pour mën comparer faut peuple yi homogène té loolu essai c'est très difficile surtout dans les pays occidentaux fekkoon sax da comparer, leen comparer mom ñaari groupe yu homogène nga bëgg leen comparer mais faut nga xam un critère ngay comparé kon nous nous rek mutlaqan ñu ñoo gën intelligent moo tax ba tey jii nii li nga xam ne ñu bari ay yenn scientifique danañ ko jéem indi pour mesurer l'intelligence mais c'est tout est remis en cause parce que un critère ngay jël pour mesurer intelligence nit da nga jël mokkal bi da nga jël sa capacité de réfléchir sa capacité de s'adapter sa capacité de comprendre ليس دا فاكولتي يوي يم القران لا نيك موتا شي اي بي نيك سوره رعد داي غيس ني يالله سبحانه وتعالى بامي واخ ليغا خا مني موم موي عقل فوف دا لي فدي موي فهم كومبران نو في الارض قيت متجاربة تي جيخنتن با دان ان في ذلك ايات لقوم يعقلون لي اي لا غير نيغا خا مني نيم نيي نيم نيي ديك دي غيس ني يالله سبحانه وتعالى ديف بن ليغا خا مني عقل اك ني خم وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فوق لول نيت ني دي باي خيل موتا ديال نجيل بن مو خني دا فا نيك تيم بو كومبلكس بو باري نيونس تي سوما ديغلو يين واخي داي نيو رك دادي كوي ملني مير مير بو خامني خلاص بام بن افي بو تيام داي نيو ساني كو دا ديم سيون نيانس تي ام ليب اك كومبلكس ديب نيو دادي كوي باغي دادي كوي daal di koy tegee tege na le yaa ngi indee wax ci wolof ci wàllu xelu muus yeewu te rek loolu yëpp man duma dégguma wolof mais ci li ma xam su néeg wala gis ne baat yooyu noonu jege nañ loolu waaye mën nañoo wute yeewu yenn saa yi olof yi utiliser ko mu doon lu positif yenn saa yi mu doon lu péjoratif mous yenn saa yi gis ne olof da koy wax lan ci jublu mooy malignité être malin être malin c'est différent être intelligent parce que ci malignité am na benn côté boo xam un côté obscur qui vise à nuire pourtant ba tey ci xel lay dellu li tax tey tubaab te terme boobu terme utiliser parce que soo tax tubaab bi kon defna ben groupe homogène bu non tax pays développé développé parce que encore une fois c'est États-Unis un développement aujourd'hui nekout ay tubaab ñom ñoko andi indi kese nit ñun dañ ci participer participation bu rëy ñi nga xamné ne ñoo jugee ci pays suñ ko mënee tuddoon asiatique yi participer participer bu rëy. mais pourtant ñuy wax développement États-Unis dañuy xalaat ne tubaab bi tubaab bi finalement kon lan mooy tubaab pour ñun am na des pays musulmans yoo xam ne si des pays musulmans yu développé wu ci jamono ji ay IDH indicateur de développement humain loolu pays occidentaux yi ñoom ñoo ko inventé ba suñuy def seen liste koo xam ne dëkk boo xam ne jigéen par exemple du dem. du jox sa goor duñ ko boole ci pays développé mais loolu seen seen seen vision des choses la mais suñu wax développement proprement dit am na pays pays musulmans yoo xam ne c'est des musulmans majorité musulmane ñoom ils sont développés il y a des pays yoo xam ne seen majorité c'est pas des musulmans ils sont pauvres donc critères yi yeneen critères yi am na mbir yu bari yu joué bëgg a jël mbir rek daal di koy delloo ne fekkee ñu dellu ginnaaw parce que dafa am benn déggin bu ñu déggi lislam bu wéeru looloo tax ñu dellu ginnaaw déedéet certes, je le dis et je le répète, déggin bu wérut après c'est très simpliste nga jël Sénégal dellu le ñu dellu ginnaw yépp bëgg ko dello rek ci gëm-gëm go xamné population bi dañ ko am té suñu une nak wala suñu suñu responsabilité ci bu je pense que li ngay situé autorité Sénégal ñaari autorité autorité religieuse autorité autorité politique mais autorités politiques ne sont pas formés par l'islam yàlla mooy dogal <laughs> mais nekkul ñoom ne la ñuy doxale ñoom suñ ne dogal ñu ci bari <laughs> suñ di di ñuy autorité religieuse yi tamit <laughs> loolu suñ ko gëmoon <laughs> duñ taxaw lëkkaloog ñoom nekk ay ay chaque fois texte texte publié comment s'appelle texte euh, euh, non et parrain association de malfaiteurs qui n'a que trop duré

démocratique laïque la république démocratique laïque bobu jël l'islam teg wa jël l'islam que su ba l'islam la wala l'islam certes mentalité population bi dina ci jouer certes ñi nga xamné ñoo ngab diiné ji wala ñoo ñu de responsabilité bu maga malgré dañ leen officiellement officieusement ñi ngi ñëw lëkkaloog ñele ci mbir yu bare bare bare bare mais delloo mbir bi ci xadaawul qadar loolu je comprends pas en fait lan moy biwu nit ki ndogal ndogal ndogal ndogal ndogal pour def ben clivage entre ñi nga xam ne gëm yalla sunu borom ak yenn euh, peut-être population yi nga xam ne dañuy fës a ni gëmuñu yalla